thank you mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal ci seen émission sow ngir aaru fii ci rajo Oxygène te nag mooy ñaar fukk ak ñaareelu épisode ci euh, suñu émission bi di émission théâtre radiophonique ñu jagleel ko mbirum euh, mbas mi ak wàllu vaccination euh, ñu ci ànd nag ak Africa Check may leen ko ànd ci ak Théâtre for a ak ndimbalu euh, Google News Initiative émission bi nag di amee altine bu jot fii ci rajo Oxygène 103 point 4 6 euh, heures ba 7 ci ngoon ñu koy rediffuser maanaam di ko tegaat dimanche bu jot diggante 11 heures ak euh, midi tey nag sunu gan mu ngi tudd Oumar Sall di bindkat di yëngu ci mbirum. aada euh, ak euh, cosaan ci thème bi ñuy waxtaanee tey nag euh, ñu may xamal ni Omar Sall mu ngi ci ligne bi ma jëkk ko dalal balaa ñu dellu si waxtaan ak moom Omar Sall maa ngi lay nuyu bu baax di la dalal jàmm ci émission bi. maa ngi fay sama voilà maa ngi si jàmm alhamdulilah merci beaucoup kon ci kanam rek dinañu ñëw waxtaan ak yow. ci émission bi laata loolu dinañ leen tegal épisode tey bi li ñuy ci waxtaan waxtaane tey mooy nag euh, vaccination bi nga xamante ne seetlu nañu toog euh, dafa xaw a taxaw ñu bëri ba tey nangu ñu dem vacciné wu ba tax na sax euh, laaju ay bis bi mooy nan la ñu war a def ngir ñaax nit ñi ñu nangu dem jël vaccin bi contre Covid 19 te it bu fekkee sax yéen seen biir di ngeen ko waxtaanee euh, ak ñi nga xamante ne bëgguñu dem vacciné wu mun ngeen ñëw waxtaan ak ñun euh, ci wàllu woowu euh, ngeen commencé envoyé ay message suñu page Facebook Africa Check wax ñu lan moo ci saafara tey nag épisode bu tey bi wax naa leen ko ci mbirum vaccination la ñuy waxtaanee maanaam naka la ñuy def ñaax ni ñi ñu dem vacciné wu ñu fàttali nag tey mooy. Euh, ñaar fukk ñaareel épisode euh, ci théâtre radiophonique bi euh, ñu ànd ci ak Modou ak ay xaritam ma fàttali nag Modou moom dafa bokk ci ab troupe bu fecckat ñu nag naroon dem États-Unis am fa spectacle def fa tournée naroon nañ ci fay xaalis waaye moom Modou moromam yëpp am nañu seen visa ba mu des moom ndax moom bu mu demee laaj visa dañ ko bañ a jox visa ndax. moom amul euh, jotul vacciné wu ndax moom nee na bëggul vacciné wu ndax gëmul feebar gi euh, feebar bi di euh, Covid 19 te vaccin yi baaxul mu xëy di ko weddi ba tey kon tey nañu dem ànd ak ñoom Moodu ak ay xaritam ak ñoom Bigué ak ñi ci des ba xam fan lañu tollu tey. liggéey ça va. pourtant sa bureau sax laa doon dem yow laa doon seet. gis nga de maa ngi woon fii di xool benn malaat mais yaa ngi ci jàmm. maa ngi si jàmm bu baax alhamdulilah. ah je m'excuse nag vraiment la fois dernière bi ñu waree ànd man ak yow xam nga malade yi ñoo bëri woon affaire yooyu noonu. moo taxoon ma bàyyi pour que nga dem wax nañ ma ni que ni def nga liggéey bu am solo liggéey bi nga xam te ni rafetlu naa ko trop. gis nga de docteur man maa la gën a kontaan keroog ba ma demee seeti femme yi ñoom ñëpp a d'accord nee nañ ñoom pare nañ pour jàppale ma ci sensibilisation bi ak ci affaire vaccin yi saa bu ñu ñëwee rek mën nañ entamer liggéey bi. dama koy rafetlu bu baax a baax xam nga nit moo mën a aar boppam nu mu mënee aaree boppam nag. mooy mu nangu ne kër lii di feebaru coronavirus déjà am na ba pare ba pare mu nangu dem jël lii di vaccin yi comme waxtaanoon nga ak ñoom ba pare léegi dama bëgg maintenant man ak yow ñu dem sur le terrain nga xam ne nangu nañu ñàkku ñu ñàkk leen ñi nga xam ni ba tey tamit nangoo guñu ñu mën a waxtaan ak ñoom à chaque ku nekk dina mën a nangu ñàkku comme ñeneen ñi nuñ koy defee je pense que daal système bi moom dina nekk lu baax ndax dinañ mën a dugg ci koñ yi waxtaan ak borom kër yi. man mii ànd naa ci ak yow boo paree rek pare naa parce que man coronavirus moo ma ñor lépp luy xeex corona rek taxaw naa ci. xaaral ma dugg bureau am lu ma rangé tey moom nga xam ne dañuy dem sur le terrain. merci docteur. ndoy ndoy ndoy waaw waaw waaw bari Baye Ndiaye waaw faa jëm waay waay waay bari xamal dama doontu woon ni kër ga laa jëm ni damay dellu maa ngi ne xaaral ba ñëw géej ndax ma am daawal hee tey da boo jaaroon géej doo fekk kenn de te moom jaar ba géej doo fen <laughs> ndoy la xew xanaa ma ne géej tey xam nga dañ doo fa nekk ah boo jooju nga xam ne dañuy wër di ñoom <laughs> doo nekk tey bor géej ndooy a ragal waa ndooy ñoo ba jafe nekkee mën naa taxaw ne doo fa dem Baye Ndiaye ah ba de xam nga dakk yi ñuy wax ne moom la ñuy dakk ci gi man moom kaa wóoluwul ndooy dinaa ma rey sa ragal gi dafa yaaga si aw ndooy xanaa xamulaa ne ñaka yow dalaa dimbali gis nga baaka ñakoo même ba feebaree sax ni mu war a def sama yaram du ko def paraga man bu ma feebaree naa dee waaye man kenn du programme sama dee yàlla suñu borom moo may jël sama bakkan bii waaye du ma jël sama bakkan di ko tay la kenn koo ci ay pikir la koy jaarale léegi ñoom ñooyu ba fa nekkee xanaa ma yaakaar ne du jële gis daal jaare boor baa rek fete suñu bare xam nga xam nga gone bi biige biige waaw waaw ma nga sa biir bi nga dama te ah. boo ko dina dama ne laban bi dafa neex ma wax wax wax wax tax tey dew ma génn dama jaral ma reposé wu toog kër ga waaw léegi la bay service yi gone goo man maa kaa def man maa la dem nañu ne ñëw leen ndooyee nga këram kay leen yéen ñàkk ka <laughs> xala boo ko defee di ma tooj de gis naa ndooy aw sa ragal gi ndax yaa nga si aw aw baa num nekkee gune ba léegi daxa sa ragal yaa xam nga ba ragalu ba loolu xam nga ragalu ba ay pikir waaye dama ne la ñàkkuwuma laa la wax ci coronavirus bi ndooy fi tool ba léegi ne dama amee xam nga nakan kaa wax naan dëj na ndooy li ma reeloo tey jii billaay ba jaay boo indee ji sa ba naan dem àll ba timis sax wala la caat di sama yoon dewustu loolu laa wax waaye ndu yow damaa gëj foofu rek waaye xam laa wax xam waaye damaa gëj foofu rek xam waaye dooy bal nga jël waaye yow oui ça va Bigué ça yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm namm naa la. ça va alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax. ci loo nekk ana paabeeg maire bi. waaw ñu ngi fi ñu ngi si jàmm. ana sama rakk yi baa ñoo ngi ci jàmm. ñëpp a ngi si jàmm sant yàlla alhamdulilah. kii mooy docteur Diop. moo nekk ci hôpital bi docteur Diop. kii Modou la tudd. papa moo tudd Ablaye Ndiaye. mooy Baye Ndiaye. d'accord ça va Modou. oui ça va docteur Diop yaa ngi si jàmm. maa ngi sant yàlla alhamdulilah. pourtant Modou seen kër sax lañ doon jëm si. l'autre jour dama waxtaan ak ñoo am benn initiative maanaam dugg ci koñ bi di vacciner population bi ñu ne woon nag dañu ñëw seen kër ñëw vacciner leen surtout Cheikh moo taxoo ñu bëggoon ñëw kër ga vacciner leen xaar ma bàyyi docteur Diop mu expliquer la merci Bigué Modou comme ni ko Bigué waxee tout à l'heure xam nga jamono ji dafa doy wax trop coronavirus bi donc il ton temps population bi xam ne lii du ay caaxaan ñu waxtaan ak ñoom ba nit ku nekk mu mun a jël lii di vaccin bi bu ko defee mu mun koo aax ci lii di coronavirus nga xam ne sax naam bu ko dalaatee du ko mën a indil ay gàllankoor ci wàllu wér-gi-yaramam loolu daal moo tax ñu ne nañu def porte porte ci kër yi dem ci koñ yi waxtaan ak nit ñi ba ku nekk mën a vacciné wu en plus mu wax ma tamit li nga xam ni dafa am solo ñi nga xam ni ay personnes vulnérables lañ ñooñu bu ñu amee beneen feebar bu ne seen yaram lii di coronavirus daal di ci euh, dolli si da leen di gën a lor dayax sa papa ñëw na ba jël vaccin bi man ak moom waxtaan nañ lu yàgg di ngeen jël exemple boobu noonu sa papa jëloon. même pour man sax loolu du am problème foofu moom bu ñu fa demee gëm naa ne ñu vacciné wul woon ñëpp dinañ vacciné wu. xam naa ne Modou nii nii d'accord na te tamit Cheikh tamit dina d'accord. Bigué respecté naa la trop nag mais yu ñàkk fayda yi bul ma ci woowati hmm? beneen bi ci des mooy suñu kër li ma la waxoon loolu laa lay waxaat seen affaire coronavirus yooyu noonu yamale leen ko ci seen bopp mais yow xanaa man boo ma rusu sax nga ruus docteur mi taxaw jël temps def explication. te moom ci domaine bi la nekk maîtriser na ko bu baax. docteur Diop xam na li muy wax yow Cheikh combien de temps la toog feebar xanaa yow sax boo yërëmul sa bopp sax nga yërëm Cheikh mais dafa war a jël vaccin bi nga naan ma Cheikh warul jël vaccin bi. Cheikh jëlul vaccin bi. et man docteur Diop xawuma ko sama yoon nekkul ci moom yow laa xam te yow laay waxal suñu kër bul fa taxawaalu di wax ay waxu vaccin sama papa mi jël vaccin nag su ma tàgg woon du jël vaccin te xam nga loolu. Bigué yaakaar naa ni Modou dafa comprendre rek moo tax Modou gis nga li ñuy wax ci vaccin bi yëpp demeewul noonu vaccin bi liñ ciy dégg yu bëri ay fausse information la ñu nekk ci wàllum wér yaram ñëpp dañ koo gëstu ba pare muy soog a ñëw fii li gën a am importance mooy nit ku nekk mu dem jëli lii di vaccin bi bu ko defee mu mun koo protéger ci lii di coronavirus docteur li ma leen wax duma ci dellu ginnaaw virgule mooy suñu kër tëb leen ko ngeen dem continuer seen ngeen di liggéey su fekkee bëgg ngeen jàmm nag. waa baax na ñun loolu du teree continuer suñu sensibilisation bu leen dugg suñu kër non du ñu teree continuer suñu liggéey docteur xam nga lan laa lay conseil kii li muy wax bul ko déglu nañu continuer dem defe suñu liggéey moo gën waaw Cheikh. maa ngi lay dégg kay. ñii laa dajal fii nii biige mu ànd xaw ma docteur Diop la wax xaw ma nee nañu xaw ma léegi seen vaccin yooyu noonu indi ko ci population bi léegi xaaratuñu gars yi di ñëw hôpital bi léegi dañuy ñëw léegi ci biir dëkk bi naan dañuy vacciner nit ñi daje naa ñoom nag ñu ne dañuy ñëw fii si kër gi wax naa leen li ma leen di wax léegi nag man yow laay waxal parce que yow la ñu bëgg a convaincre nee na pour nga vacciner wu bul jël vaccin yi dégg naa ko ci rajo bi ba pare nee nañu dañuy nëw pour nit ñi mën a ñàkku lii kay alhamdulilah man kay dinaa mën a ñàkku léegi. xoolal Cheikh bul jël ñàkk yi li ma lay wax xam naa ko ñàkk yi baaxul dañ ko def uniquement ngir wàññi population africaine bi yow bul bokk ci ñooñu. su fekkee ne ñoom dañuy nëw dugg ci këli kay ñi nga xamante ne mënuñu dem foofu dispensaire ba ñoom ñu fekk leen fii ñu leen di nak loolu kay baax na. Cheikh eh, yow xoolal xamoon na ku lay wax nii ni ay waxu nit ñii bul jël seen vaccin yi. beneen bi ci des yow xam nga ne vaccin yi si ñi mu gën a gaaw mooy ñi nga xam ne dañu am feebar te yow yaa ngi ni wéeroo dimbali sa bopp ñax yi boo ko jëlee xoola sa bakkan na nga ci xottu gerte eh, eh, eh, Modou eh gis naa aw mettu sa bopp ah. gis naa seex mi sa mag la ni mu la joxee cër joxee kaka noonu man dama noonu duma si wax seen diggante yi ñaar moo yónneew si waaye nag a ngi bëgg ëppi loxo ah. kii bu fekkee daf bëgg a ñakku bàyyi ka mu ñakku kii yàlla def na mu ngi tane bala doxantu ah. ma man dama dama dégg ñuy wax ne fekkee da ngaa ñàkku da ngay feebar wala loolu moo taxoon ma ma ragal fekkee ne amul loolu mun naa ñàkku. Cheikh sam papa moom ñàkku na ba pare mais moom conséquence gisoon na ko gis na bi mu ñàkkoo dafa feebaroon yow nag attanoo loolu baax na. moo du ma feebar bàyyi ka bi ma feebaree xama conséquence xama bi mu ma dalee. bi mu amee ñetti fan yàlla may na ma jàmm Cheikh dama ne bu fekkee dafa bëgg ñàkkul la ma wax Cheikh bul ñàkku de Cheikh dina ñàkku Cheikh bul ñàkku wax naa la ko nag maanaam Cheikh ñàkkul ba mu neex la xoolal boo fi nag loo gis nag yow la yaa ko teg sa bopp wax naa la de man damaa xamul léegi tan ndax damaa war a ñàkku wala walu ma ñàkku bul ñàkku Cheikh dinaa ñàkku nag ba xam ndax Modou mii moom moo la jur wala man maa la jur Modou aw lan la salaamaaleykum. papa Ndoye. maaleykum salaam waaw waaw bi nga da ngeen def. Ndoye Ndoye. waaw sant yàlla alhamdulilah baa yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm alhamdulilah gis naa laa gis. waaw maa ngi nii rek maa ngi si jàmm de sant yàlla alhamdulilah def ak liggéey bi. ñoo ngi si jàmm alhamdulilah alhamdulilah ma présenté la sama xarit bi. docteur Diop la tudd. ah waaw waaw Diop da ngeen def waay. maa ngi fi Ndoye alhamdulilah jàmm rek. waa papa xanaa tey liggéeyoo pourtant dem naa booru géej waaye gisuma la fa de. ah xool naa la foofu ba sonn gisuma la. wax nga dëgg de tey moom dew ba booru géej tey moom jaar ba foofu fen fen fen fen fen fen. pourtant nag ba ma la laajee sa xarit yi dañ na ma yow sori woo woon de loolu lañ ma waxoon. walaay walaay tey kay moom liggéeyu ma de tey moom bàyyi ci kër gi fii la laa yéen de. waaye nag ñun dañoo amoon benn initiative maak euh, docteur Diop mi. maanaam gis nañu koñ bi ñu bëri nanguwuñu dem vacciné wu. ñu jël nag initiative ne dañu dugg ci koñ bi vacciner nit yi ku bëgg vacciner wu rek ñu vacciner lañ gisuñu la ci fiche bi moo tax ñu bëggoon la jël vaccin bi rek defal la ko soo ci àndee. ma ne bii yàlla xam na ne boor géej googu ngeen jaar noonu li tax fekkoo leen ma fa yéen ñi yére tax fekkoo leen ma fa de ah. xanaa amoon yéen laa dégg da ngeen di ñëw boor géej ji ñakkaata nit ñi ma bañ a ñàkk moo tax ma toog sama kër ay waay yow mag nga mag rek feebar la te ku ne xam na ne coronavirus bi dafa gaaw ci mag moo tax nga war a jël vaccin bi yaa ngi naan man wéru ma walaay de feebar ngeen moom ngeen ma bëgg a dugalal te yàlla xam ne man da nga war a jël lii di vaccin bi pour nga mën a protéger ci euh, lii di coronavirus. pare nga docteur vacciné wu ma de ak loolu leen bati wax dama de vacciné wu ma Mbaye Ndoye yow tamit bul wax loolu an sama tante moo ngi ci biir bàyyi ñu ñu dugg bari sa tante dafa génn dafa dem tuur waa léegi bàyyi ñu dugg wax ak waa kenn nekkul ci kër gi man maa nekk ci kër gi laa lay wax kenn dugg fi mën na sa doom bii bari sa sama doom da xaw ma bii nga xaw ma kële waa léegi doo ma déglu yow tamit bari déglu ma la laa la wax man vacciné wu ma waa na bopp de demal waay yow dañuy dàq yow tamit papa waay waay kenn kër diisoo ngir aaru ñaar fukkeeli épisode ak ñaar euh, ñi ko joué nag euh, comédiens yi ngeen dégg ñooy Cheikh Ndiaye Khady Fall Diaw Mame Mbodj Gaye Seynabou Diop Yacine Diop Mouhamadou Diol Euh, di nag technicien bu ko nafar di falu Sow ki koy jàllale bu ngeen mën ko déglu ci antenne bi di Emmanuel Mendy ñu tuddee ko ñu gën koo xamee DJ Las ki nag Kumba euh, Silla moo saytu ba yépp euh, jàppandi kon ñu ngi leen di gërëm ci déglu bi ñu wéy ci nopp suñu émission bi di soo ngir aaru Euh, ñuy ñu leen ko may kii di Africa Check ànd ci ak Theatre for a Change ci ndimbalu Google News euh, Initiative ñu fàttali nag que émission bi yéen auditeurs yi mu ngeen ci dugg ngeen euh, bokk ci émission bi ñu may xamal ni auditeur bu njëkk mu ngi ci ligne bi pour ngeen bokk rek da ngeen di envoyer message 77 424 94 73. bu ngeen ci envoyé ci whatsapp numéro boobu 77 424 94 73 ñun dinañ leen woo ngeen bokk ci émission bi te léegi sax bu ngeen bokkee ci émission bi di ngeen am neexal dinaa leen wax neexal bi lan la euh, bu ma paree ak euh, auditeur bi nekk ci ligne bi asalaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam. maa ngi lay euh, dalal jàmm. foo féetee ak noo tudd. maa ngi wootee Daaru Pikine. lan nga xalaat ci épisode bi li nga jot a déglu tey ci werante yi. ak ci ñàkku yi noo gisee audit euh, suñu euh, épisode tey bi. Euh, waaw dama doon déglu rajo jàpp émission bi introduction bi ñu naan ci affaire maanaam sensibilisation ci vaccin yi la ñuy wax après nag may déglu après nag ma tolloo ci ci ci ci maanaam ci épisode théâtral partie boobu. ma déglu ko mais dama cee benn partie boo xam ne ànd naa ci gis benn partie boo xam ne daal gis naa ci boo xam ne daal moom dafa mel ni comprendre euh, ban njëriñ la vaccin yi am. waaw euh, mun nga ñu fàttali tur bi. Euh, man maa ngi tudd Baba. Baba waaw léegi baaba xamal li ñuy def comme am na foo xamante ne yow nga ne àndoo ci. comme ni ma ko waxee émission bi mën nga dugg ci biir pièce bi yow sa bopp nga waxtaan ak personnage yi. kon euh. Euh, ban parti nga bëgg duggee ban parti nga àndul ak euh, ñi doon wax ci mbirum vaccin bi. ci côté ñaari ñaari paa yi dafa mel ay paa la ñu. ci sant dooy keneen ci xaw waaw mooy ñi nekkoon ci ci ci kenn ki jógee ci tefes bi muy ne. moom vaccin yi mu dégg moo tax mu jógee foofu. li ñuy def dañ leen di bàyyi ñu. ndax euh, comédien yaa ngi fii en direct dañ leen di bàyyi ñu joué waat scène bi léegi foog nga déglu bu baax bu ñuy joué scène bi ba ñu yegg fi nga xamante ne yow foofu nga bëgg a dugg da ngay wax stop euh, euh, wax stop bi ngay wax mooy tax ñu may la dugg nga waxtaan ak ki nga bëgg waxtaan nga jéem koo dimbali ba xam ndax dina changer gis-gis xalaat ci mbirum vaccin yi kon ay ca ñu dem nga déglu bu baax bu fa yeggee rek nga wax stop waaye Ndoye waaw waaw waaw ba di Baye Ndiaye. waaw foo jëm ne waay. waaye damaa doon woon Baye Baye damaa doon woon kër ga laa jëm nii de walaay. ah man maa ngi xaaral ma dem géej doxatu ndax maa maa leen daawal foo. waaw tey boobu tey boobu la koy wax dëgg yàlla tey boobu daw ma géej. yàlla dogal na tey boobu ba ba bàyyi ci kër ga walaay walaay. waa la xew. waaw ba di aba aba ku yooyu doon joor ñooñu gone yooyu nga xam ne dañuy gis. waaw nee stop kon ñu ko mu mu waaw waaw bari tey day borgéej jaar ma fa wax dëgg yàlla xale yooyu da nga xam ne dañuy dugg di vacciné di ñu ñoo nekk borgéej boo tax tey daw ma fa li ma lay bëgg wax mooy lenn xam ne ku la nag fangul sa la bëgg loolu de wax dëgg yàlla te umpale woon ne feebar bii di coronavirus waaw ndox mi gis nga li mu def Sénégal waaw waaw bari xam naa xam naa ne moom wax dëgg yàlla yóbbu daay nii ñu bëri wax dëgg yàlla waaw te bu njëkk ba dañ doon dem ci hôpital rek pour ñu vacciné ñu Eh, vaccin yooyu da laa lay wax ne problème bi ngi ci de aba ah, vaccin yi wax dëgg yàlla dee dañoo jël yenn vaccin dañoo jël virus bi def rek ko te a man ka am yàlla dogal ne man mii mag laa te ma demee vacciné wu bi daf may dugg waaw nit ku baax doo dégg teel li rek ne damm na ah déedéet dégg ma teel te damm na de déglu ma rek ma a la ah, waaw waxal maa lay dara bu xewee da ngay laaj ñi xam ñi wax la ñi xamul ñooy wax loo xam ne nii amul ci vaccin bi mais nga xam buñ la waxee boo demee kër docteur wala nga dajeg ñi nga xam ne seen xam-xam fàcc na ci mbirum yoon docteur buñ la waxee di nga xam ah léegi léegi la feebar bii waaw dañ da nga dem di ràññi di vacciné wu léegi ñu la vaccin yi ba sa kër la vaccin yi ba sa grand place waaw damaa bëgg nag nga dem vacciné wu ndax ku la ne sangul la bëgg waaw ba di jaw ba kii baaba yow yàlla dogal na wóor nga vaccin waaye yow bari yow naa ko bu baax parce que bu njëkk ba liñ ci dem ci daw nii loolu laa ci daw yow vacciné wu déglu bu baax ba jox ma ne vaccin yi boo ñëw ca. vacciné wu si yow vacciné wu laa laa wax yow. vacciné na ma bu yàgg laa vacciné wu. gisoo benn conséquence. benn conséquence ko ci maa ngi wér fi gis nga ni may dox ci naaj. ah. ah yow sa njaboot wér yow bëgg la ñu vacciné wu. dama ne vacciné wu naa bu yàgg damaa bëgg na vacciné wu ndax ku leen a sang safaar la bëgg nag. nag baal ma waxtaan ak sama jagadaay. bu bu mu ci am. mën naa. xam naa lu ma la wax xam nga risque baay def boo tax. dama ne. waaw. mii doy naa la ñege naay ndax lu yendu ci man fanaan ci yow lu fanaan ci ma a vacciné woo ndax ma ko wala nag ñoo ko woon ndax. nag baay bi waxtaan gi ba pare xam nga xam nga booy booy def yooyu da ngay waxtaan ak jaboot gi. jërëjëf Baba ñu ngi lay gërëm bu waaw Baal balaa ma bàyyi la nga dem yow Euh, no noo gisee waxtaan wi ak Baye Ndiaye est yaakaar nga ni euh, li nga ko wax dina tax mu xelam dellu ci ci mbirum euh, vaccin yi. waa xam nga boo waxee mbir mu ne dinaa waxtaan ak sama njëgënaay rek mag ñi buñ ko musoon a wax rek mooy nangu nañu mais bëgg ñoo nangu ci ci ci public kon jàpp naa ne moom waxtaan na njëgënaayam bu xëyee dina vacciné wu. waaw kon Baba ñu ngi lay gërëm bu baax kon mën ngeen def ni Baba envoyé message 77 424 94 73 ci WhatsApp. ma bamtuwaat ko 77 424 94 73 boo leen ko envoyé ci whatsapp ñun ñu daal di leen woo ngeen dugg ci émission bi te saa yu ngeen duggee ci émission bi euh, ñu neexal leen euh, crédit 2500 euh, kon mun ngeen envoyé ay message su ngeen bëggee bokk kon yi naa ngi déglu diisoo ngir aaru fii ci Oxygène 103 point 4 ñu fekki nag sunu sunu gan Euh, di Omar Sall Omar maa ngi lay nuyuwaat bu baax di la dalal jàmm ci émission bi. maa euh, di waaw di la gërëm bu baax ci ni nga nangoo euh, bokk nekk suñu gàntey ñu waxtaanee nag mbirum mbas mi ak vaccin yi ak coow li ci am yëpp. ma bëggoon laaj sa xalaat bu njëkk ci ci épisode bi nga déglu tey ndax ma fàttali que ni yow bindkat nga te sa ngay yëngu ci wàllu. Euh, euh, aada ak cosaan nga xam nag lu jëm ci wàllu théâtre mu bëggoon la laaj lan nga xalaat ci épisode bi nga déglu tey. waaw di ci bëgg parce que mbir yu mel nii comme feebar bi fi bi fi nekk daal di fi faat suñuy suñuy bokk suñuy mag suñuy suñuy yaay ñëpp ñu yaakaar ne war nañ ci mën a wax pour aar aar nit ñi. Euh, yoon la ñu boole leen ci te théâtre ñëpp xam nañ ne amul moyen de communication bu ko gën am njëriñ pour wax ak askan donc utilisation bi bi ngeen ci théâtre bi gën a ñi ñaax ñu xam ne feebar kat bu ñu fi ba parce que ñu bëri dañuy fàttali ne tey rek foog naa am nañu onze cas te bi fi mbas mi commencé bi léegi suñu xoolee ne rey na eh, daanaka li toll ak mille neuf cent soixante quatre personnes loolu du du nen donc euh, di rafetlu daal théâtre bi ñu utilisé ak comédiens yi xarañteef bi ñu ci indi ngir yéen jërëjëf. waaw balaa ñu ñu ñu ñu sori ci ci ci waxtaan wi euh, wala ñuy wax sax lu jëm ci vaccin ñu wax ci ci ci feebar bi ci boppam euh, mbas mi bu fi amee ba léegi euh, muy soog a ñëw ak ba léegi sax dafa mel ni ñu ñu ñu bëri gëmuñu ko waa wàllu daal jàppewuñu ko lu xaw a garaaw yow ban jàngat nga am ci sensibilisation yi ñuy def dafa mel ni nit ñi daal ba tey. dafa da jàppewuñu ni feebar bi lu am la wala lu garaaw la. c'est vrai que nag euh, mbir mi xam naa ne suñu demee ba yëpp dal ñi nga xam ne ni seen xam-xam màcc na ci ci sociologie ak mbirum socio anthropologie ak jàng yu jàng yu xarañ yooyu dinañ ñu wax li tax mais man ci li gis benn mbir bi muy ñëw daf tombé ak benn ambiance bëgguma ko bëgguma ko tuddee anti français mais mbirum français yi français yi français euh, en banlieue euh, ñoo jël suñu poom ñoo fii ñu jékki rek ñu ne feebar bi ñëw na ci àdduna bi ñu ne ñu ko ko njëkk indi ñu ne français la ñoom xamuñu sax ne français bi ñuul na mu weex mais le fait que ñu ne français la rek esprit complot commencé na dugg donc pour ñoom c' ñu ngi dugaat ci ci wàllu waaye tubaab bi dañu bëgg dañu bëgg dañu bëgg donc boobu pour man nekk na premier jafe-jafe ci mbir mi ñaareelu jafe-jafe bi mooy confiance bi sénégalais yi am ci seen système de santé boobu boobu nekkul woon confiance bu dëgër parce que foo demaan ñu ngi jooytu dëkk bi ko ci amul soo soo feebaree da ngay dee da ngay feebar soo amul xaalis duñ la laal duñ la laal donc loolu tamit bokkoon na ci lu indi ñàkk gëm bi population yi gëm seen système de santé suñu waxee rek dañaa ne ah, ñii bureau politique la. troisième élément bi foog naa pièce bi indi na ko tuuti xam naa dinañ ci dellusi euh, am na am na kenn ko wax ci bu meññee bi ndaw si ànd ak bi di def sensibilisation euh, waa ji da ko ne. kii ñun xamuñu ko man yow laa xam mu war a interroger rapport bi autorité war a am ci biir communauté bu mu nekk cest yow du ne médecin ngi rek da nga war a toog si bureau maladie di ñëw war na am beneen xeetu communication boo développé ak sa environnement immédiat su ngénte amee nga dem su dëj amee ngi dem léeg-léeg nga dem dugg ci kër yi nuyoo loolu day tax yu mel nii su amee te yow sa kàddu moo fa war a gën a mën a fës soo waxee ñu déglu la mais soo fa taxawaaye taxawaayu gan rek toog fa toogaayu gan bis boo jegee soxla aska yi nit ñi dañ lay dañ lay tuuti loolu daal laa ci jàngat yi laa ci jëkkam waa jërëjëf Omar kon ñu dellu si waat yow le temps ñu jël benn euh, auditeur ma fàttali nag euh, auditeurs yi euh, numéro bi ngeen di envoyé message 77 424 94 73 su ngeen ci envoyé message ci WhatsApp ñu daal di leen woo ngeen dugg ci émission bi boo leen duggee ci émission bi mu ngeen dugg sax ci pièce bi jouer ko ak acteurs yi bu fekkee dafa am koo xamante ne lu mu wax àndoo leen ci. mu ngeen waxtaan ak moom ba jéem a delloo ci waat euh, xelam ba mu changer d'avis euh, kon ñu may xamal ni am nañu auditeur bu nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ah kii de daa mel ni xamee naa ko de. <laughs> waaw <laughs> maa ngi lay siyaar bu baax a baax. waaw euh, Masey. waaw Masey dalal jàmm yow moom yow moom ci mbir mi nga bokk. wallaay dëgg la. waaw Masey tey nag fan nga bëgg a duggee. waaw d' abord di leen remercier waat encore rek wax dëgg yàlla di amati mbégte rek mbégte la saa su ne ñuy dugg aussi di partage ak gars yu baax yooyu foofu yëpp wax dëgg fa yàlla. tey nag maa ngi bëgg duggu ci dernière seen bi. nooy ak euh, docteur euh, Diop. waaw ak Bigué. Euh, léegi foofu nga bëgg a duggee. foofu laa bëgg dugge waaw. waaw yow xam nga sax nu muy demee waaye nag bàyyi ma fàttali rek comme sax bu fekkee am na ñu ñuy déglu te bëgg a dugg. ñoom ñu xam suñu duggee naka la ñuy def. kon dañuy tegaat pièce bi ndax xam nga ni fu mu toll ni euh, acteurs yi ñoom ñu ngi ci studio bi dañuy joué waat scène bi en direct nga dégg donc suñu yeggee fi nga xamante ne fa nga bëgg a dugg rek nga wax stop soo waxee stop ñu bàyyi la nga dugg nga waxtaan ak euh, ak acteurs yi kon bokk nañu dem bisimila waa kii lu Papa Ndoye Papa nam naa la waaw bari bari bi nga da nga def waay bàyyee ci jàmm sant yàlla Abdoulaye da nga defa coono sant yàlla Abdoulaye barkalla pourtant sa kër laa doon ñëw sax damaa moom booru géej di la seet waaye fekkuma la fa wax nga dëgg de tey de moom liggéey ba yàlla kii mooy docteur Diop awaa ah, Diop da nga def waay Ndoye bari yéen a ngi si jàmm baa yéen a ngi si jàmm waay wa da nga coono yi jàmm dama bëggoon euh, ñëw sa kër expliquer la xam nañ ne fan yi coronavirus bi euh, dafa commencé waat jaxasoo moo tax ñu ne woon dañu ñëw sa kër pour euh, sensibiliser la pour nga ñàkku bari kat pour kat jàkku laa wax pour yow bàyyi bari xamalal la xamalal la kii bige bari bari jàkkuma xanaa boo sax boo rek ba gisul boo rek jor yéen yéen a tax di xamoo daal da ngeen di jóg booru géej boo bari xaaral ma waaw Massé Massé nee na stop kon ñu bàyyi ko mu dugg moom mu joué ak yéen ba euh, waxtaan. Euh, ba xam bari sa jaay. waaw ah, kay. waaw bari sa sa sa ba sa Fall ba jaay. xam nga ah, ko bu fekkee ne nit ki na di ko fekk si koo ko jàpp. waaye xam nga xam nga Pape Ndoye. waaw. Ah, xam nga ci naan sangul. waaw. bëgg na sa taar de. dëgg la loolu dëgg la. n'est-ce pas. ba nga dégg de. man nag dama dama dama gis ni. que li ah. lii docteur Diop jóg def jóg di def ak ak ànd ak bii dañoo bëgg nga gën fi yàgg. te dañoo bëgg nga yow gën fi yàgg. gën a tamit mën a taxaw taxawu sa njaboot. te loolu nag wuy baax wuy baax xanaa balaa ngay sori. balaa ngay sori xam nga ni ñii li ñu def di waare dog la. yow dooy fajee ci hôpital bi doo yem ci sa hôpital bi nga xam ne foofu ngay fajee gannaaw dangay wër di jàkk nit ñi. jàkk lu lu lu tax ñu xam nga Papa Ndoye Papa xam nga man si yow laa fa yow laa faraloon di dégg nga naan. waaw boo bëggee sauver kuy lab da ngay tooy comme moom. waaw yaa ma doon wax loolu. wax ah, léegi nag mu ngi noonu ginnaaw nag ah dañ dañ la fekk ca booru géej ga nga daw ñëw sa kër. waaw dañ lay topp ba sa biir kër rek ngir maanaam sensibiliser la. Mhm. parce que dañoo bëgg sa wér-gu-yaram bëgg sa jàmm yaram bëgg nga gën a yàgg fi. ba njaboot gi ñëpp di la teral te loolu nag papa Noy. waaw ñu ngi bëgg njëkkee ci comme vaccin bi moo fi nekk li nga xam ne agum moom moo ñu mën a musal si jàngoro boobu noonu li bëggoon rek nga jël ko comme sama papa ni ñu ko jëlee eh, comme ñun ñëpp ni ko mag ñu jëlee. bu leegali bu leegali jaay. waaw yàlla daan dogal de man vaccin bi dara dara laaj wóoluwul wax dëgg yàlla. léegi nag vaccin bi li ma ci nekk moo bari boo tax. deretu vaccin boo ko jëlee. xam nga xam nga ne xam nga ne Pape Ndoye dama lay dak mais xam nga yooyu yëpp nga siy dégg. waaw ci nga xam ne wóorul yooyu. mais amul benn docteur bu ko wax n'est-ce ay ay sama genre gi yëpp kese ñoo koy wax. waaye raw na ci kii de abaaba kii joko yu joko génne TikTok yi ak ak am ak ak ak WhatsApp. TikTok TikTok ak messager yooyu dara wóoru ci. Pape Ndoye gis nga àdduna bi xam nga fan la toll. waaw ku nekk sa baykat ngay wóolu. ku nekk sa médecin ngay wóolu. ku nekk sa footballeur ngay wóolu. foofu la àdduna bi toll te ñun nag suñu médecin yi waaw ah wax dëgg yàlla suñu leen wóoloo de maa ngi lay maa ngi lay assurel que ni feebar bi dina delloo ginnaaw ci réew mi nañ leen wóolu rek ñoom ah man xanaa xanaa ba kii daal man daal wax dëgg yàlla affaire yi dalu sama xel xanaa daal ba xoolaat ko rek jërëjëf jërëjëf jërëjëf <laughs> ma Massé ñu ngi lay gërëm bu baax a baax mbaax li nga doon mbaax li nga doon ut am nga ko noo noo gisee parce que xam nga yombul nga mooy wax ak ku mel ni moom position am muy Pape Ndoye ah, mais juste rek comme li may faral di wax rek naxtaan rek ndànk-ndànk rek soo jaaree fi mu dëgër da ngay jéem a xool beneen porte bu ci wet rek ñoom jafewuñu quoi. jërëjëf comme ñu ngi lay gërëm bu baax. Euh, merci beaucoup may fàttali auditeurs yi déglu mën ngeen def nii. Euh, Massey euh, Cheikh Massey Fatma Ndiaye ngeen envoyé message suñu numéro WhatsApp 77 424 94 73 77 424 94 73 su ngeen ci envoyé message ñu daal leen woo ngeen dugg ci émission bi def comme Massey dugg ci pièce bi waxtaan ak. Euh, personnage bu leen neex bu fekkee àndoo leen ci lu mu wax wax lu mu xalaat ngeen dimbali ko ba gën ko xelal ba xam ndax dina Euh, dina soppi xalaat ci ci mbir mi ma ma fàttali nag ngeen duggee rek ñu daal di leen neexal euh, yónnee leen euh, crédit deux mille cinq cent muy cadeau bu ñu leen defal ci wàllu émission bi kon maa ngi dellu sunu gan gi di Omar Sall. Omar ñu dellu ci am na li nga li nga junj sànq ñu am lu ñu seetlu nag ci ci ci wàllu mbas mi depuis bu mu amee ba léegi am na. Euh, ay xibaar yu bëri yuñ ci dégg ci mbirum feebar bi ci mbirum euh, euh, vaccin yi seen bopp nag ay xibaar yu ci bëri nag wóorul maanaam kenn xamul fu mu jugee te kenn vérifié wu ko li li tax sax émission bi jóg mooy jéem a xelal nit ñi te jéem leen dimbali ñu xam fan lañu mën a amee ay xibaar yu wóor ci mbir mi yow sa gis-gis ngay yëngu ci mbirum euh, euh, aada ak cosaan ci mbirum théâtre lan nga xalaat ni euh, li mel ni théâtre ñu koy def ci rajo théâtre radiophonique ban rôle la mën a jouer ci mbirum sensibiliser askan wi. waaw parce que théâtre dafa am avantage bu mu am mooy que ne dina dina yegg fu peut-être beneen jumtukaay du yegg surtout mu nekk xeetu théâtre populaire yi dafay dafay jiitu. parce que dafay boole musique boole danse boole li ñoom seen léeg yooyu euh, donc nit ñi dinañ ci bàyyi xel ñaareel bi mooy que ne ña koy def lañ leen di xam bëri na dëkk bi euh, théâtre kat yi xëy na mën naa wax ñoom lañ fi gën a xam sax que xëy na football kat yi ñoom seen parce que am nañ fi am na bët bu leen nit ñi di xoole donc ñoom seeni seeni wax seeni taxawaay indi indi. Euh, ci débat bu mel ni diggante Pando yi ak góor gi ñu ñu ñu nekk ci débat contradictoire ñu dem ba ci biir ka ba ñu nangu loolu dafay mun na indi nit ñi ñu ñu nangu ne kat ah lii kon kat dem ñàkk ji lu baax loolu théâtre moo ko te xam naa ne du luy du lu ñuy comme ni ko ni ko ni ko ki dugg léegi waxee rek ba sëy du lu ñuy def benn yoon te ba wax ak nit ki benn yoon rek bañ ne rek nga bàyyi déedéet da nga ci da waaw xam aussi wut ay pexe parce que parce que sensibilisation moom pexe la pexe ba ci njëkk nag mooy na ngay waxee ak nit ñi parce que nit ñi euh, tiital leen taxul ñu ragal parce que message yi njëkk bi ñuy a jot bi bi mbas mi njëkkee ñëw dañ doon tiitalaate Sénégal moom xam naa ne soo ko waxee da ngay dee moom foog naa ci lay gën a ñeme moom lii day reyee moom bu ko ko wax day reyee moom da cee dugg donc waxin ba euh, tiitalaate bi amul njëriñ mais soo indee njëriñ ña ca ne aar sa bopp aar sa jaboot euh, xool ne diw ak diw ak diw ñoo ngi fa woon kat lii moo leen yóbbu te kenn weddiwu ko donc yooyu xeetu waxtaan dina tax nit ñi dina dellusi parce que soo leen ko bëggee force rek bu leen ko bëggee ñuux dañuy ragal donc euh, information bi communication bi day nekk luy nekk dans la durée mais suñ ko bëggee def jooni jooni Euh, ci wàllu woowu sax euh, waaw ci wàllu seet nañ bi mbas bi ñëwee euh, am na ay mesures yu bëri ñu jëloon ay couvre-feu genne takk der yi ci tali bi ñuy <laughs> jàpp nit ñi di leen kii est-ce que comme ni nga ko waxee sànq est-ce que loolu tamit gënul tax nit ñi seen xel mën nañ jàpp ni xëj na seen xel teey na ci maanaam dañuy mën nañ laaj ndax est-ce que faj nit rek wala bañ nit feebar rek est-ce que jar na lii yëpp est-ce que am leneen lu ci làqu est-ce que loolu tamit taxul nit ñi gën am position yenn position yi ci feebar bi. mais parce que dañ fee fekk ay ay xeetu ay xeetu ay xeetu cax ay xeetu waxin euh, dañ naan euh, kaay baax kenn du ci forcé nit ñun loolu la ci loolu lañu ñu yar kaay baax kenn du ci forcé nit donc donc kaay kaay faju situation bu ngeen farfere tey mu yaakaar ne kii xanaa de xanaa de sa wér yaram doon moo kat moo tax muy sonn nii dafay am réflexe boobu évidemment doore yeeg ay bu bi ci bi ci war nag mooy rester chez vous. waaw waaw rester rester chez moom. moom xaw ma xaw ma ko ko fu dugal. waaye bokk na ci la yàq communication. waaw loolu de waaw boo boo resté chez moom doy na war maa ngi fàttali mu doon mos a tooñ benn nit ni ko ki wax resté chez vous yow yow yaa ngi ne resté chez te yow yow di yow yow moom bokkoo ci ndax yow ñeneen ñi ngay waxal reste chez vous. <laughs> waaw gis nga déjà day tax yow yow ñu laaj la yow lu tax doo resté chez toi. <laughs> dafay am solo parce que parce que nekk parce que dama wax sax Sénégal waaye xëy na àdduna mais Sénégal sénégalais dañoo dégg da ngay wax ak ñoom dafay am solo donc doonte doonte lu baax ci ñoom la mais waxeen ba rek dina dina tax ñoom ñu dina tax ñoom ñu waaw ñu ci loo xam ne ni xëy na sax seen njëriñ la lu xëy na sax seen njëriñ la waaye dañ cee wax ak ñoom mën na mën na aussi changer seen position. Mm-hmm. te gis naa ci ci pièce bi ngeen dawal sànq assistante sociale bi. am na ku ci wax ne dige moom su bëggee dara moom munoo fexe ba bañ ndax ndax wax jaa neex donc communication bi day am solo. Hmm. assistance sociale yi aussi joué nañu rôle bu am solo ci pandémie bi parce que ñoom ñoo xam population yi ñoo xam nañuy wax ak ñoom donc loolu aussi lu ñu war a lu ñu war kon euh, Umar ñu ñu ñu dem ci auditeurs yi ba ci kanam ñëwaat ci yow euh, am nañu auditeur bu nekk ci ligne bi nag euh, ma asalaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam wa ñu ngi lay dalal jàmm ci émission bi euh, ñu bëgg a xam sa tur ak fan ngay woote waaw man ne maa ngi tudd Ousmane Niang jamono ji nag maa ngi jam ñaaji Ousmane mel ni xamee naa yow moom waaw yow ci kër léegi euh, léegi ci kër gi nga bokk xam nga nu muy demee waaye rek ma fàttali ko ndax ñiy déglu tamit bu ñu déggee suñu bëggee dugg ñu xam naka la ñuy def pour dugg ni ñu koy defee saa su rek euh, da ñuy wax ci ban seen nga bëgg a dugg acteur yaa ngi fii ci biir euh, studio bi ñu jouer en direct seen boobu su ñu yeggee fi nga bëgg dugg waxtaan ak ki nga bëgg a waxtaanal euh, nga wax stop ñu may la nga dugg kon ban seen nga bëgg duggee ak kan nga bëgg a waxtaanal kan nga bëgg a xelal. waaw man de diggante Ndoye docteur ak Bigué boobu moom bëggoon naa ci wax. waaw su ma ko mënoon dégluwaat. waaw kon ni ñu koy defee rek ñu ngi leen di bàyyi acteurs yi ñu ngi fii ci studio bi ñu joué waat seen bi euh, def ko en direct waaye nag bul fàttee wax stop soo waxul stop dama lay fàttee de da ngay wax stop comme ça nga mën a dugg da ngay déglu bu baax boo ñu yeggee ci partie bi nga bëgg duggee rek nga wax stop. incha allah maa ngi déglu. waa Aïcha kon nañ dem. waa papa Ndoye naa def. waaw ba di bi ngeen da ngeen def waaye bàyyi rek ci jàmm bàyyi yaa ngi ci jàmm alhamdulilah bàyyi sant yàlla baa baax a baax kay ah papa ñun de booru géej lañ jóge woon sax di la seet xanaa tey liggéeyu woo déedéet déedéet tey tey kay yàlla dogal na jaar ma booru géej tey ma moom dëgg la waaw walaay walaay da ngeen def ak coono ñoo ngi si jàmm kër ga sax laa doon jëf ah, maag docteur Diop mi dañoo waxtaanoon am benn initiative seetlu nañu koñ bi ñu bëri nanguwuñu dem hôpital ñàkku ji moo taxoon nag ñu bëggoon ñëw ci koñ bi nag ñàkk leen gis nañ ne yow carrément ne ñàkk woo moo taxoon ñu bëggoon la ñàkk waaw bari bari kii ah, ah, bi eh, bi ge ah, xanaa moo ne boor géej goog boole ma fa gisul yér yér a tax walaay walaay yàlla xam na ni yér ji ma gis ngeen xay nga nekk foofu daal da ngeen di ñàkkaate moo tax ñëw ma booru géej léegi daa man ak yàlla dogal na ni moom moom jàkkuwuma jàkkuwuma de waaw kon nee na stop Ousmane Niang nañ ko bàyyi mu dugg waaw ndoy de ndoy de laa bëggoon interpellé waaw bari Ousmane waaw ndoy demal ñàkk ci ndoy ay ah, déedéet wooy ay waay waay loolu bés ba daaru laay na xanaa war a war a ñàkk yi ne ci waay yëpp ñàkk yi ne ci waay yëpp xaru la booy ko ñàkk ñàkk bi da lay aar aar bi dina tax aussi nga aar sa njaboot aar sama njaboot ñàkk bi loolu naka lay demee kat ñàkk boo xam ne da ko waroon jëndee xaalis bu bari ñu may la ko mu aar la ba pare nga aar sa bopp aar ñeneen ñi kay demal jël ko moo gën balaa muy weet bari Ousmane balaa ngay jëlee ñàkk bi lu gën a seer loo xam bari xaba xaba xaba xaba ñàkk yi li ci wax moo tax bari yàlla dogal na di ñemewu ma ko ndax nee nañu boo ñàkkoo boo feebar boo boo jëlee ñàkk bi da ngay feebar xaba xaba sama xarit boobu noonu baa jaay. xanaa da ngaa yor di million nit di ko jël. te ñu cocc di dox ci mbedd mi. hee baa jaay ko jëlee fii nii dama feebar feebar bu métti yàlla xam na ko. te ka am na sama beneen xarit booba nekk fii nii booba nekk fii ci ginnaaw koñ bi. bi mu ko jëlee ko jëlee téléphone bi daf doon ndooy dawal ñàkku ji. ah dara waay ko waay. ñàkku bi daal moo lay aar mooy tax aussi nga mën a aar keneen. bari jàkk waay jàkk lan la may aare lan la may jàkk di aara jàkk boo xamante ne boo ko jëlee da feebar yàlla yaa dogal na ne ñàkk bi ne lañ boo ko jëlee bu fekkee doon am doom dootoo mën a tee am doom bu fekkee ne lañu jigéen boo ko jël nag boobu boo gën a borati xam-xam bu fekkee ne jigéen da koo jël ba pare après mënatul am doom te ñun ñi nga xamante di njaboot wala daal ñàkk daa war waxu mbedd loolu laa la bëggoon wax nga dem ñàkk ji demal ñàkk ji waaw waaw bari baax na dinaa wàcc àll sama jagadaay incha allah demal ñàkk ji moo lay aar aar aar aar aar ah, déedéet ba gaaraatu ma la damay ñàkku de dama dinaa wàcc àll sama jagadaay loolu laa la wax Ousmane waaw incha waaw baax na waaw jërëjëf. jërëjëf jërëjëf Ousmane Niang ah, dafa mel ni. xaw nga ko convaincre tuuti de même bu fekkee waxagul lay ñàkku ji waaye dafa mel ni dina ci xalaat daal. waaw moom daal di def waaw jërëjëf kon ñu ngi lay gërëm bu baax euh, ma fàttali leen ak yéen ñiy déglu diisoo euh, ngir aaru fii ci rajo Oxygène 103 point 4. Euh, di théâtre radiophonique ñi ci waxtaanee mbirum euh, Covid 19 ak vaccin yi euh, diisoo ngir aaru Africa Check may leen ko ànd ci ak Theatre for a Change ci ndimbalu Google News Initiative yéen ñiy déglu mën ngeen def ni auditeur bi ngeen dégg sànq Ousmane Niang da ngeen di envoyé message si numéro WhatsApp mi ma leen di jox 77 424 94 bu ngeen ko defee ñu. daal di leen woo kon ma fàttali numéro bi 77 424 94 73 da ngeen ci envoyé message wax ni ngeen da ngeen bëgg dugg ci émission bi ñu woo leen ngeen dugg te su ngeen duggee mën ngeen wax ci ban partie euh, pièce théâtre bi ngeen bëgg a duggee ak ban personnage ngeen bëgg waxtaanal euh, ngir euh, xelal ko kon mën ngeen envoyé message pour ngeen bokk ci émission bi kon ma dellu ci sunu ganu tey bi Omar Sall. Euh, Omar waaye nag dafa mel ni euh, xëj na tamit nu mu nekkee mbir mu bees te it dafa di euh, maanaam tubaab yi di ko woowee pandémie maanaam daanaka ci dëkk àdduna yëpp la feebar bi law mu nekk feebar bu bees te xam-xam bu buñ ci am taxu ko bëri noonu wala bu ñu yaakaaree ne ni lii la tey suba ñu amaat beneen. xibaar ci ci feebar bi est-ce que loolu tamit bokkul ci li xaw a euh, euh, nërmal nit ñi ndax li ñuy dégg day wute trop ba du ñu xam du ñuy def ñu jëlee ci ragal mbir mi daal. dëgg la dëgg la te loolu du Sénégal rek foog naa ne yëpp mun naa ko tuddee genre ba mën na xeetu maladresse bu ñu def c'est que euh, mbas mi politiciens yi seen kàddu moo ci gën a fës que kàddu docteurs yi. te loolu dafa dafa tax ñu bëri seen seen xel dalu ci parce que mbir mu mel nii du mbiru politique mbiru wér yaram la donc euh, ñi cee ne ñoom la ñu di déglu saa su ne di leen dégg mais li ci gën a bëri politiciens yi la ñuy dégg euh, ñoom ñoo doon wax ñoom ñoo doon joxe ay directives ñoo doon donc ce qui fait que nit ñi dañ naan eh politicien la rek dañoo bëgg ñoom seen ceeb la ñu bëgg defaraat rek dañoo bëgg lii wala ñu ne ñu dégg ne euh, France jël na benn mesure. da ngeen ah fekk naa suba da ngeen dégg Sénégal dañuy def la même chose. donc position positionnement politique boobu bokk na ci lu ci lu néewal doole sensibilisation yi nga xam ne ni moom spécialiste yi doon def. beneen bi ko néewal doole mooy mooy débat yi ñu doon def ci télé yeeg rajo yeeg rajo bu ci nekk ku la ku neex nga invité ku ci xam dara ku ci xamul dara ku nekk di wax sa xalaat parce que mbir mi waratul woon doon wax sa xalaat wax loo xam la waroon mais dañ koo soppoon wax sa xalaat donc euh, auditeurs ñi nga xam ne ni aussi seen seen njàng sorewul te ñoom euh, lu ñu dégg ni rajo la rek di ko bëgg waxee TikTok laa ko gis pour ñoom lu ñu gis ci média yi rek dëgg la donc loolu tamit bokkoon na ci lu gën a néewal doole euh, sensibilisation bi. Mm. ba tax na nit ñu bëri tamit seen xel dafa commencé woon ñaaw parce que sa xel su dalul ci biir moom doo ci doo ci sawar dugg loolu moo téye ñu bëri surtout nag nga dégg ne Sénégal rek mais adduna bi yëpp. am na ay nit ñoo xam ne nii dañoo dañoo ne duñu ñàkku donc loolu dafay conforter ñeen nañu ci seen position donc am na benn maladresse euh, évidemment politique bu am au niveau mondial mais je pense que politiciens yi ñooñu waaw Omar kon euh, jërëjëf ñu ñëwaat ci kanam rek euh, jël beneen auditeur bu nekk ci ci ligne bi asalaamaaleykum mbokk mi noo tudd ak foo féete. Ah, waaleykum asalaam wa rahmatulah maa ngi tudd Daouda Ndoye. Daouda Ndoye. Euh, waaw dëkk fan. Yaraax. Daouda doy dëkk Yaraax Daouda ñoo ngi lay dalal euh, jàmm euh, déglu nga sunu épisode tey bi. waaw ma ma boobu émission bi sax. waaw jërëjëf kon Daouda ma fàttali rek nu ñuy mm-hmm. ni émission bi di demee xëj na sax mm-hmm. jot ngaa déglu auditeur bu bu jàll sànq nu mu def. waaye dama koy fàttali pour ñeneen ñi nga xamante ne ñoo nekk di déglu. comme ça ñoom tam bu ñu wootee ñu mën a euh, xam lu ñuy def kon yow euh, da ñuy wax ban partie épisode bi nga bëgg duggee ak kan nga bëgg waxtaanal boo ci duggee euh, kon ñun dañuy bàyyi comédiens yi ñoom ñu ngi studio bi ñu jouewaat scène boobu en direct nga déglu waaye da ngay déglu bu baax ndax suñu yeggee fi nga bëgg a dugg exactement foog nga wax stop soo waxul stop ah du xam ni danga ngaa bëgg dugg kon dañ lay tegaat partie bi bu ñu yeggee fi nga bëgg a dugg rek nga wax stop. kon euh, ban parti nga bëgg duggee ak kan nga bëgg a waxtaanal. mooy seen kat bi fi Modou ñëwee ci kër gi ne grand frère bi du ñàkku. waaw ah, kon fu mu ñëwee di wax ak grand mu wax grand frère am ñàkku. waaw te papa ji bàyyi rek euh, Modou moom ak euh, waa këram moom ak papam ak mag ji ñu waxtaan kon da ngay déglu bu baax de. dangay ngay bu baax suñu yeggee. fi nga bëgg duggee rek nga wax stop. cheikh. cheikh waaw xoolal ñoom kii laa dajal ñoom biiga laa dajal ñuy wax ay affaire yu ñàkku nee nañ dañuy dugg ci biir kër yi di ñàkkaate léegi nag bu ñu ñëwee ci kër gi yow bañal bul ñàkk bul ñàkkul wax naa la li leen di wax nag mais yow yaa yow mii laay waxal yow mi nga xamante ne yow yaa yow yaa war yow la ñuy bëgg a convaincre donc bu ñëwee ci yow bañal bul ñàkk ndax. stop waaw kon nee nañ ko bàyyi mu dugg. Euh, waxtaan ak euh, Modou ba xam. Euh, Daouda. ah waaw Cheikh mi xam nga ne sama grand frère la. waaw bàyyi muy dugg ci affaire yi nga xamante ne du yoon. xam nga ñàkk yu baaxul. ndax liñ ci wax yëpp nii ni du bàyyi muy dem di ñàkku ji. Modou. waaw. su may njëkk waxee mooy que yow feebaroo dara dara man ñaanuma yàlla dara dal ma sax. ok sa grand frère daf feebar. waaw mais nekkul feebar yu garaaw garaaw yooyu de. waaw waaye boo feebaree ak fi ñu toll ci coronavirus bi fu mu toll. boo feebaree dafay aajo nga jël nga jël vaccination bi. waaw pour mu dimbal la ci yeneen ci ci jàngoro ji. ndax boo yoree feebar bula la jàngoro ji dalee day gën a métti. daaw da léegi nag xam nga wax ji lan moo fi nekk. mooy ah. yow vaccin yi. yow xam nga ne dèjà nee nañu boo ko jëlee boo nekkee góor. da ngay am hmm. problème am doom non. dégg nga ko wala déggoo ko non dama la ne ndax dégg nga wala déggoo dégg naa ko waaye loolu ay wax la rek ci def nee nañu bu fekkee da nga jël vaccin bi boo jëlee sa téléphone boo ko tegee ci sa mbagg bi nga ko jëlee dafay kolewu dafay mel ni acier. Modou. waaw. xam nga tey boo demee ci médecin yi. waaw ñoom faj la ñuy def waaye xam nga Sénégal dañ ñëpp dañoo mel ni ay médecin lañ ne ñëpp bëgg a faj. waaw. yaa ngi dégg. waaw dafa mel ni tey bu la dara di met rek di nga gis kon la jëlal garabu guy ñi ne la jëlal garabu dénk xër yooyu noonu moo yàq dëkk bi te gis nga nag feebar yow même bu dee gënee yow ñàkk woo nga bàyyi sama di mu ñàkk ndax moom dafa feebar. loolu du ma ko seetaan. déet Modou du noonu. daaw de xoolal sam papa yow kattan kattan gi nga am ba mën a taxaw ba man a ba mën a dañ. mu amul kattan boobu te moom bëgg naa ñàkk. non man du ma ko bàyyi muy ñàkk man du ma ko seetaan muy dem di xaru. déet da ko war a da nga ko a bàyyi mu ñàkk nag. non man sam papa fii la jël vaccin bi feebar bay bëgg dee. man daal sama sama rakk sama mag di dem. loolu loolu loolu soo gisee xam nga lu tax waaw dose bi boo ko boo koy soog a jël balaa muy adapté ak sa yaram. waaw da lay xaw a indil yenn problème yu ndaw mais loolu du feebar du dara. soo waaye daal xam nga lan la du màtteeg dina màtte ba cee dugga sa loxo da ko gën a wóor. waaye yow bu léegi Modou yow yow dañal dañal waaye bu dañ o keneen. non mais Cheikh sama mag la am naa droit. sa mag la waaye yow yow da nga am sa part moom mu am part. non part man maa koy gérer. déedéet te mënoo naan sa ndox naan ndoxu jàmbur. non daaw da xam nga léegi lan la man vaccin bi wóoluuma ko te duma seetaan soma frère di ci dëggu. Modou. waaw. leen de laa lay yëgal waaw. moo waaw. gis nga jabar buñ ko takkee. waaw. yow sa jabar. Cheikh ak jabaram waawal de. non loolu jabar nga wax. <laughs> waaw benn la rek. Ah, kon ehm, kon Daouda ñu ngi lay gërëm bu baax Daouda Daouda noo gisee Modou Modou dëgër na bopp de. mun naa dëgër waaw waaye nañu wéy waxtaan ak moom rek nañu wéy waxtaan ak moom. ba xam ndax euh, dina dina changer d'avis kon euh, da ñu ngi lay gërëm bu baax. ci euh, maa leen di gërëm ci participation bi yow tamit. ma fàttali leen nag mën ngeen def nu mel ni Daouda saa su ne altine ngeen di bokk ci émission bi da ngeen di rek envoyé. Euh, message suñu whatsapp bi 77 424 94 73 bu ko defee euh, ñu daal di leen woo ngeen bokk ci émission bi euh, te ma fàttali leen am na neexal sayu ngeen bokkee ci émission bi rek ñu daal di leen envoyé crédit bu 2500 ma dellu ci suñu gan bi au Sall dafa mel ni nag jamono ji ñu seetlu nii cas euh, yi xaw wàññeeku en tout cas daal wuute na ak nu mu meloon ci ay weer yu ñu weesu est-ce que nag du ñu ci euh, sukkandiku yaakaar ni mbir yi jeex na ñu wàññi sensibilisation bi defe naa léegi la ñu gën a war a gën a yokk sensibilisation bi de. waaw waaw parce que comme comme léegi comme léegi mbir yi dal je pense que euh, li ñuy dépensé woon ci communication bi fi mbir mi nekkee war nañ ci dépensé ñaaram. pour fàgg li war a ñëw ëllëg parce que information population dañ koy informer dañ koy tàggat ci information donc euh, waratuñu xaar ba beneen das ñaanuñu yàlla mu mu ñëwaat waruñu xaar ba leneen ñëw ñu ci soog a jógaat léegi la ñu war a jóg ci def information jàngal xale yi nan la ñuy jàngatee xibaar Youssou Ndour woyoon na ko fi lees waxul du lépp lu ñu la wax lépp loo dégg nga foog ñu dégg la mais woy mu ngi fi ba tey donc loolu dañu ko war a dugal ci daara yi ci école française yi tàggat xale yi ci droit à l'information nan la ñuy dégloo ak nan la ñuy jàngatee xibaar loolu benn ñaareel bi dañu nekk ci communauté boo xam ne ni dafa am ay nit ñoo xam ne ñoom soo leen jàppee rek jàpp nga ñoom la ñuy tuddee xëy na léegi euh, influenceur mais xëy na sax mais ñoom sax seen seen pouvoir moo ëpp ci communauté yi ñooñu euh, di continuer di jokk ak ñoom parce que ñoom suñu defee rek mbooloo def. lu am solo la. waaw ñooñu il ñu leen ci bàyyi xel di leen jox gëdd du ñu xaar ba mbir ne kët ne joon rek ñu daw dem ci ñoom. dañuy gis ne opportunisme la mais balaa mbir di xew ñoom cër ba ñu ne nga leen cay boole tey di sóoraale ëllëg comme ça ëllëg su bi doo xaar sax dem ci mbooloo ma da ngay ci nit ka moom mu wax ak mbooloo. jërëjëf jërëjëf Omar Sall. waaw dama bëggoon dama dama bëggoon yeggali ci benn poñ rek. waay ci li ma seetlu. mooy euh, ñenn ci docteur yi nu ñu doon euh, nu ñu doon waxee ci médecine traditionnelle taxoon na tax na tamit ñu bëri euh, nanguwuñu woon dem ci li ñuy wax médecine moderne parce que soo fekkee dëkk boo xam ne ni daanaka li ëpp ca xaaj ga ñoom médecine boobu ñoom maam la ñuy utiliser moom lañuy ñuy fajoo doo ñëw indi lu bees rek génn rajo génn télé ne lii dara baaxu ci waxin boobu xeetu waxin boobu baaxul. dafay dafay yàq du jërëjëf Omar ñu ngi lay gërëm bu baax a baax mu nekkoon sunu gan Omar Sall euh, di euh, bindkat te it euh, di yëngu ci mbirum aada ak cosaan ak théâtre yi ni mel ñu ngi lay gërëm bu baax a baax Diisoo ngir aaru épisode tey bi jeex na ñu tàggatoo ak yéen Samba Dialem Babaji mu nekkoon ci micro bi. ànd ci ak suñu comédiens yi ñu dooree ko ak euh, Cheikh Ndiaye. salaamaaleykum man maa ngi tudd Cheikh Ndiaye maa doon euh, def euh, rôle Modou ak Ndoye. waaw ñu ànd ci tamit ak Mame Mbodj Gaye. salaamaaleykum maa ngi tudd Mame Mbodj Gaye maa doon joué rôle Baye Ndiaye. Jaraboot. ak kit kii di Yacine Diop. salaamaaleykum maa ngi tudd Yacine Diop man maa doon def tey euh, docteur Diop. waaw ànd ci tamit ak euh, Seynabou Diop. salaamaaleykum man maa ngi tudd Seynabou tey maa doon joué rôle bu ak euh, Khady Fall Diaw. salaamaaleykum man maa ngi tudd Khady Fall Diaw nekk mère ak it Mouhamadou Diol waaye tey nag moom nekkoon ak ñun fii ci studio bi kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di gërëm. Emmanuel Mendy DJ Las mi euh, nekk ci machine bi tax ba ngeen euh, mën a déglu fallu Sow di suñu technicien buy nafar suñu sketch yi ak euh, ci njàppandalu kii di Kumba Silla mooy saytu ba lépp dox kon ñu dig leen daje altine bi di ñëw.